aoudubillahi mina sheytaani rajim mbokk yi asalaamaaleykum yéen ñu nii seetaan tey noo ngi dalal kilifa gu mag di ko yàlla may si wàlluk ñaan ak faj ñëpp xam ko ci faj ak ñaan ñu koy wax ci ñu koy wax sëriñ Mouhamadou lu mbay Asrar di doomi sëriñ fàllu mbay Kurus ñu fas yéene seq ak moom waxtaan wu yaatu jëm ci wàlluk euh, faj euh, sëñ Fallou Mbaye ñu ngi lay nuyu di la ziar xamdan liman qad alama al asrara bi fadlihi ibadahu al abrara alxaaliqu al arsh ma al kursi summa asalaatu wasalaam ala sayidi al awalin wal axirin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi lay euh, delloo nuyoo di la ziyaara ak mbokk yi nga xam ne ñoom nga àndal ak mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi seetaan gannaaw bi nga nuyoo ñoo ngi lay laaj lan moo dox diggante listixaar ak euh, seet listixaar ak seet ba xam benn la wala du benn ndax damay dégg sëriñ yu bari ñu naan listixaar ak seet léegi ma bëggoon nga defal ñu ak ràññeel listixaar ak seet. waaw listixaar ak seet ñoom ñaar ñi seeni tur wuutee noonu la seeni mbir wuutee ak seeni doxin nur nañ nur nañ benn mais duñu benn mm-hmm. seeni tur ni ñu wuutee mm-hmm. noonu dañu wuutee ñoom ñaar mooy listixaar ak seet. Mm-hmm. bu dee istixaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu ko jàngal ana nan lañ koy defee yoonu leer woo xam ne julli bu nekk mën na koo defal boppam wëlis mu koy def lu keneen te loolu yonent bi sax moo ñu ko jàngal ca moo di da ngay jàpp ba sell ci waxtu woo xam ne waxtu wu dagana naafila la nga julli ñaari rakkan soo noppee nga def istighfar muy astaghfirullahu alazim comme li nga man soo noppee nga jàng salaatu ala nabi kadalik mm-hmm. euh, li nga man soo noppee nga jàng ñaan ga nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxe woon na ko mu di allahumma inni astaghiruka bi ilmika wa ko bi qudratika ba ñaan gi jeex soo noppee nga ñaan la ngay ñaan wala boog nga laaj la ngay laaj daal di tëdd bu fekkee mbir la moo xam ne mooy sàkku dugg la suñ borom dana ci ak tawfiq ak jàpp na insha allahu taala bu fekkee nekk na mbir moo xam ne soobu nga ci gis ne jàpp yombul jàppandiwut xamal ne mbir a gënul ci yow suñ moo ko def ca ginnaaw ba nga xam ne def nga di saxaar ba pare bu dee li nga xam ne nag moo di seet mbir la moo xam ne kenn du ko mën ci àddina lu dul na nga koo jàng ndax léppam dafa aju ci xam-xam moom seet léppam dafa aju ci xam-xam ca xam-xam yi nga xam ne moom moom moom moo ci méng moom li moom seet faaw nga xam li ñuy wax ilmul xuruuf ak xilmul nujum ñaari xam-xam yi c'est obligatoire nga maîtriser ko soog di mën def li nga xam ne moom la ñuy def moom la ñuy wax seet ci ñaari xam-xam yooyu mooy tax nga mën a xam nag nit ki tabiayaam moo tax nga mën a xam nuju bidiwam mooy ngi tax nga mën a xam rawxaaniyam bu dee tabiax yi doomu aadama yi moo tax ngay mën a xam mbiru nit ki ci wàllu am amam moo tax nga mën a xam itam ay jafe-jafeem moo tax nga mën a xam itam ci lan ngay euh, moo tax nga mën a xam itam maanaam euh, euh, ay jafe mbir mu nekk fan ngay jaar ba mën a faj ay mbiram moo tax nga mën ko xam bu dee ni wax ilmu nujum mooy tax nga mën a xam itam ay wax ay semaine mhm. moo tax nga mën a xam ay bisam moo tax nga mën a xam ay waxtoom moo tax nga mën a xam itam ay weeram mhm. bu fekkee li nga xam ne moom lañuy wax ya mhm. moo tax nga mën a xam nit ki ci fan ban taxawaay ngay taxawee ban taxawaay nga mën a taxawee nga mën ngay mën a taxaw faj ay xaajoom ci ginnaaw ba nga xam ne lees tax seetal nga ko ba pare loolu mooy seet seet gi nag dafa wute am na ñoo xam nañu ko defee ci ndox am ñu koy defee ci kurus am ñoo xam nañu koy defee ci suuf am ñoo xam nañu koy defee ci ci ci ay téere am ñoo xam nañu koy defee ci seetu kenn ku ne ak xam ak ak fa nga xam ne fa nga jaar ba saxaar ko waaw sans départ rek ci nit ki nga xam ne bëgg na ko seetal ni ma dikkee mm-hmm. ndax nit ñi bokkuñ ca xaala yi tamit ka daal di ko bokkuñ yow mi nga xam ne yow la ñu seetlu mm-hmm. ca ngay sëriñ bu mat sëriñ xam la nga xam euh, ku ne rek ak kam doon ak fa nga koy seetalee ak waxtu wu ñu lay fekkee yenn saa yi mu ñu fekk la ci xaale boo xam ne mm-hmm. euh, say fadi say say ngëneelu bopp yi la suñu borom jagleel ci ngay seetee mm-hmm. suñ Fadal fi muy seetee euh, bari na trop mu mel ne listixaar ak seet bokkul. de listixaar ak seet bokkul loolu mooy li nga xam ne mooy seen farq mu leen wutale. wax nga ne listixaar nit ki mën na ko waaye seet ak sëriñ ku nekk mën na koo defal sa bopp ndax yéen sam jàngal na kon ni ko leeralee. Mm-hmm. waaye seet kenn du ko def kenn du ko def ci at lu dul da koo jàngal. jërëjëf sëñ Eh, damay laaj dégg na eh, naa ñu bari naan cat cat lan mooy cat ak ndax cat dana gàllankoor nit hmm. waaw wala déet cat day mhm. li mu def doomu aadama mhm. wala boog li mu mën a yàqal doomu aadama mhm. gàllankoor mooy li si gën a tuuti ndax li Yonent bi sallallahu alayhi wa ci boppam mi nga xam ne mooy gën gi mu def jàngal nañu ne nisfu nisfu xuburikum min uyunikum ñi ëpp doole ci seeni way bàmmeel cat moo leen fa tëral wala boo xaaji doomu adama yi cat moo tax ñu faate moo leen rey kon cat lu danger la kon am naak amut kon kenn du ko natt ndax yi loolu dañuy sam sam jàngal moom cat sëriñ su bari dama leen dégg ñuy ñuy wax cat cat mais des na ñoo xam dëgg dëgg sax danger bi nga xam ne ci am na ko xabaas dafa wax ne li may wax ne xadis la qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam law tasabaxatul xadru wala aynu la sabaxat la sabaxatul aynul xadar moo wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne bu fekkoon cat dogalu yàlla bi ak cat dañuy jë dañuy jëkkalante kon ñu wax ne cat mooy jiitu dogalu yàlla bi imaam muslim fee ko ne fedd feddale ko ci waxi yonent bi sallallahu alayhi wa ne muhammad wax na ne wala kaana shay'un walaw kaana shay'un saabiqul qadr al ayna bu fekk am na lenn loo xam ne dana jiitu dogalub yàlla bi moo di cat yéen sax wax ni lu ëpp doole ci doomu aadama bu ñu faatoo cat moo leen rey Cheikhul Ahmad Bamba wax ne doomu aadama lépp loo xam ne dal na ko ci ay xeetu musiba ki balaa ki fitna cat mooy li nga xam mooy meftaax bi mooy caabi yi nga xam ne moo ubbil jafe-jafe boobu buntu ba mën a tabbi ci doomu aadama bi. nit ki lépp li ko mu xam lu naqari la cat bokk na ci. Seexul Xadim nee na lépp lu dal doomu adama ci xeetu musiba mm. nit ñaara koy dal musiba wala natt bu dee natt yàlla moo koy teg nit ngir yëgee ko ci ay marxala wala ay ay ay darajaate bu fekkee ay musiba ak fitna ak ay bala ak i bala cat moo ibbil képp kum dal cat mooy li ay bëgg ngir mu ñëw si ko. ki nga xam ne cat jàpp na ko wala liggéey wala lépp loo xam ne xeetu musiba la wala fitna ci kawam wala jafe-jafe bu ñëwee ba jëflante ñun wala boog bu fekkee dañu ci moom dafa jëla jëflante wut ak ñun waaye képp koo xam ne suñu borom teg na la yu ni mel bépp booy dund sa jooy yëg sa dund wala say mbir boo jëflante laa kulli xal nañ ko tàqal ak yow bi idnillahi taala jërëjëf mu mel ne leer na ci ñu ci wax euh, ndax euh, da ngay ñaan ci nit ku tëju wala koo xam ne tëjuwul waaye dafa bëgg alal nit ñi ñaari nit lañ. Mm-hmm. mooy ki nga xam ne al foq maanaam ci way ñàkk yi lañ koy boole yorut. Mm-hmm. ak ki nga xam ne yor ma waaye dafa bëgg am amam bari. Mm-hmm. ki nga xam ne yorut. am na ñoo xam ne yow ñàkk mutlaqan yoruñu dara am ñoo xam ne ñàkkuñu waaye seen xarakaat mooy seen activité bari nañ waaye lu ñu yóotu mu échec. ñu lijjanti benn mbir ba mu jafe ba mu sotti loolu day nekk lu jafe-jafe la lépp loo xam ne yaakaar nañ ko en général day daal tas lépp lu ñuy lijjanti ba noonu nekk lu yomb day mujj nekk lu jafe loolu ba mu yéem ay mbir yu bari ñoo koy def yenn saa yi alimu nuju ak dana ci dana dana ci laale yenn saa raw xaane yam dana ci laale yenn itam mu nekk liggéey mais li nga xam ne moo yor volant bi li koy diriger loolu lépp rek base fondamentale la mi ngi bàyyi ko ci cat mais yu mel ne booy dindi nit ki jafe-jafe du dañ ci lu dul nga xam ismu da ngaa xam li ñuy wax ilmul nujum ak ilmul xuruf ak lan mooy rawxaaniya boo ko amul doo mën a fayal kenn saafara doo mën a fayal kenn soxlaam donte da nga koy bindal ay gàllaaj ay saafara yu nekk yu baax a baax a baax muy sangu 124 dimanche doo gis résultat mukk ci àdduna loolu da ngaa dajale xam-xam yi boo dee nag ki nga xam ne kon yooyu képp ku ñëw ci ñun lu la ci mën a dal nañ ko taqal ak yow ñàkk képp ko xam ne dal na la bu ñuy dañ ko tàqal ak yow incha allahu taala bu fekkee ne li nga xam ne mën nañu wax taal nit alalam bari mu am alal yu baree bari des nañ ko liggéey ci bu buyud danañ ko liggéey ci samsun bilaat danañ ko liggéey ci samaanati uruf danañ ci doxee sañ-sañ ci ismullahi aadam danañ ci doxee itam bi barakatil quraanul karim waaw léeg-léeg nag nga gis koo xamante ni moom tëjul waaye lu mu liggéeyee su dajalee ba jàpp ne am na benn rek day jeg loolu ci wàllu rawaxaane ci lay dox mm-hmm. moom laa weesu ginnaaw li ma wax ni mooy mm-hmm. ki bëgg a takk mm-hmm. bu jëflante ñun ci yoon yi benn ci la ñuy jaar quraan ismullahi adam samsul wala yeneen ak yeneen samsul bilaad wala samaaniyatu huruf wala alfu buyut buñ ko defalee man sëñ Fallu maa wax ne su toogee ñetti weer om amam nekkul yéem ko ba yéem képp ko xam ci di borom xel ma dagg sama kurus naan sàngara ca la ma joxoon ca xaalis ma delloo ko. waaye léegi euh, ci wàllu tukki ndax fi bëgg nañoo tukki waaye day dëgër dem wala boo ko bëggee dellu si dafa nekk ñaar. waaw weeña feeñal naa ci résultat bu nekk ci àddina hmm. amul kenn ci àddina ku bëgg tukki. Hmm. jaar fa mu war a jaar lijjanti ay kayitam ba ba pare mm-hmm. ba ñëw ci man ba jox ma visa passeport am ba ma téye ko ñetti fan def ca la ma cay def mm-hmm. jox ko ñu mu dem ambassade ñu di ko rejeté kooku amul ci mënul nekk c'est impossible mm-hmm. amul kenn koo xam ne ci àddina di nga ma jox sa passeport ma def la ma la cay la ma def jox la ko ñetti fan jox la nga dem ambassade ñu di la rejeté ambassade duñu aussi mukk ci àddina ba la rejeté képp ku bëgg a tukki tukki nga jafe dafa ñëwul ci man waaye bu ñu ñëwee ci man incha allahu taala fu mu bëgg a dem suñu borom dana ko kon ñu dem bu dee itam ki nga xam ne. Mhm. dafa nekk bitim réew bëgg a ñëw. nga xam ne am na kayit ba dem war a bëgg amaat ay kayit ngir ñibbisi. Mhm. kooku feeñal naa ci ay résultat ay yoon yoon résultat yoo xam ne kenn mënu la ko nettali ngir bari gum bari. Mhm. ba mën naa laa seedal ne bu fekkoon émission bi am na téléphone buy woote. yaakaar naa kar kar ak i shaahid ak i seede. danañu sonal tey. ca la nga xam ne moom laa koy defal la ma koy defal moom ka nekk ci bitim réew war a ñëw nekkul lu ñuy sangoo wala lu ñuy naan ci bismillaahi ci laa koy ma ko defee toog mukk ci àddina ñeent fukki guddi lu dul nañ ko woo jox ay kayitam léegi nit ki nga xam ne coow daf koo topp dana nit coow dina ko toppee ci ñaari mbir. Uh-huh. am na ñoo xam ne coow da dina topp mutlaqan dañoo judd rek yëg ñoom coow nit ay nit coow lañ coow da leen topp mm-hmm. buñ defee coow topp leen buñ defee coow topp leen mm-hmm. ak nit ki nga xam ne coow dafa def njombe ci erreur ci lum naka tey wala dañ ko tuumaal teg ko coow bépp coow bu topp doomu aadama moo xam coow police coow tribunal coow gendarmerie wala coowul état wala coow bu mën a doon ci àddina mm-hmm. bu ñëwee ci man siñ Sëñ Fallu ma fay coow li comme ni nga xam ne noonu la sawara di fay ndox incha allahu taala amul kenn ci àddina ku coow di topp ñu gisantee ma jox la dama lay jox ca fuyu mag coow la ci 24 heures sur 24 musul am mukk ilay ci ci àddina. jërëjëf loolu day ginnaaw loolu euh, ñu lay laaj jigéen bi nga xam nekk ci am ay jafe-jafe mu xam wala a amul njaboot mutul njaboot loolu nan nga wala borom këram waaw wala borom këram. jafe-jafe jigéen dina ko am góor dina ko am ci biir néegub sëy yenn saay mu jiitu sëy bi yenn saay mu nekk ci biir bi nekku sëy bi nit dina bëgg ko ci sëy bàyye bañ walla yaaya walla ñenn am ci ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jege ñaale yi dana dal góor dana dal jigéen yenn saa nga si jigéen bu bëgg dugg ci sëy góor yi góor yi nekk du ci dugg du ci dal ndax kii nangam la wala ay xeer de boddante ngir ay géer ala kulli xaalin képp ku ci jëflante ak ñu bu soob yàlla bu ñëwee lépp lu si coow danañ ko fay ci képp ku ci àndutoon ci lu baax loolu war a am mm-hmm. danañ la noot ba nga àgg ci ci loolu nga sañ ko bañ incha allahu taala mm-hmm. ñaare bi itam bépp moo xam ngay góor wala jigéen mm-hmm. ñaare bi itam jigéen gu nekk sa biirum néegu sëy sa borom kër jox la bopp ci njëlbeen nga ñëw ba ci digg ba sa borom kër wan ginnaaw boo ñëwee incha allahu taala bu dee lam def ko ci dëgg dañ la ko nootal mu topp la comme ni xaj di toppee borom ànd ak sagoom nag incha allahu taala bu dee jigéen yi itam goo xam ne góor yi itam goo xam ne jig da jabaram da koo të njort na jëgam jabaram ji day mooy yàlla wala boog tënkul ci indigalam mm-hmm. incha allahu taala danañ ko nootal mu topp comme yam yellee incha allahu taala bu dee itam jigéen goo xam ne boroom këram daf koo tong ci lu mu teg ko ci ci dëgg mm-hmm. bu ñëwee lépp lu ci saafara danañ ko saafaral ba xolam sedd ware nañ ci ay cas meroraaram bi tekraaram amul benn sual question boo si posé mm-hmm. ci nekkul ne liñ ci feeñal ci résultat bari na bari goo xam ne ñun mënuñu koo lim mënuñu koo lim mais ala kulli xaalin góor a jigéen kenn ci ñoom ñaar du am jafe-jafe biir néegub séyam moo xam muy dugg wala muy dugg ba ci moo xam avant muy dugg wala mu dugg ba ci biir gisante ki ñun suñu fàll mi ci nekkoon loolu saafara nañ ko incha allahu taala waaw kay kon góor gi nga xamante ni dafa yàlla dafa def ñaar la wala boog ñaari am na ñaari ñaari déggin am na nga xam ne dafa am dafa feebul mhm. tëlewut completement dafa faible kàttan la amut

dégg naa képp kuy sikk sàkk mbirum sëy bi am na wala amul dafa jëflante mu toj yow li ma bëgg a xam suñu fàllu lan la yor ay jinne la yor wala ay lu mu euh, lépp lu mat a jàng ci ilmul asrar mm-hmm. yàlla def na ma jàng ko ba mm-hmm. teg ko mm-hmm. man see faja xaaja nu ne man man see faja xaaja nu nekk dinaa jëfandikoo ismullahi al mm-hmm. ngir faj xaajo yi mm-hmm. dinaa jëfandikoo mbootum alquran muy secret alquran mm-hmm. ngir faj xaajo yi ndax waaye li ma lay wax mooy bépp problème ci àddina wala boog bépp jafe-jafe ci àddina bu ñuy régler sur le plan technique wala médecine wala domaine bu mu mën a doon ci àddina mm-hmm. suñu borom taw fee xel nañu ñu mën koo régler sur le plan mystique yàlla nee na ci alquran mm-hmm. law anzalna hadi alquran ala jabal la mm-hmm. raytahu xaashi'an mutasaddi'an min xasyatillah waxul kay dii de mbootum alquran lañ wax secret ba buñ ko wàcc woon ci aw doj bu ñëw ay kayit mbootum alquran lañ buñ ko wàcc woon ci doj doj wa dana seey suñ borom dénk na ma mbootum alquran xaajo woo mën na sa saafara addu amut. Euh, yow da wàllu sunguf wala wàllu sunguf. waaw moo gën a gaaw. ci itam moom la ëpp lu may jëfandikoo. Mhm. ndax lu ëpp ci doomu aadama yi. Mhm. lañoo ñoo taq. Mhm. lépp loo lay ñaanal samedi mu jàpp. mën nañoo xëy dimanche loola tojaat. ngir seenu sàggan mm-hmm. moo tax sunguf mënu si ñàkk mm-hmm. maa ngi jëfandikoo ismullahi azam ak mm-hmm. sirrul alquranul karim waaye mbirum sunguf nekk dañ koy faral di laal ndax mooy li nga xam ne euh, moom lañu jox nit ñi ngir seenu sàggan waaw kay kon ñu tëj tàggoo ak ku la soxla ak sa adresse ku la soxla fan la lay fekk waaw ñu ngi Tuubaa danañ faral di tukki nag ci biir réew mi ci raison yi ak bitim réew waaye suñu base fondement fondement mi ngi Touba Touba daal fi lañ juddoo fi lañ yaroo ci jamono ju nekk ñu ngi fi waaw ki ma bëgg a jot mooy 634 83 83 10 ak 277 60 32 d'accord waaw kay ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen ndokkeel mhm. te di leen jaajëfal ci ñëw bi nga xam ne ñëw ngeen ko lii sax nekkul sama tabiya ya mhm. sama sama aada mhm. wante mëntu woon a ñàkk mhm. ndax jafe réew mi neexut tappale yi bari ca domaine bu nekk am na triche am na ay tappalekat muy faux médecine faux policier faux lépp waaye faux marabout ci gën a bareeti ca ñi nga xam ne dañuy sol mbubbum sëriñ jël dara bi wékk ko ci seen jël kaala wékk ko seen ndodd du woyoo sëriñ turu sëriñ mm-hmm. ca pëndub sëriñ gisuñu ko dañoo bari ci réew mi mm-hmm. kon nag yéen journaliste yi mm-hmm. maa ngi leen dénk benn mbir seeni micro yi képp ko leen koy tàllal wala seen caméra yi képp ko leen koy dëpp na ko gëstu ba xam ay mbiram sol di wax ak moom salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu